di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di jéggalu bu baax a baax ci li ñu gëj a def vidéo xat-xat yi rek moo ñu téye woon ak nekkoon ci liggéey bi ñu ngi remercier encore une fois ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre di leen ñaan ngeen abonné wu te partage ngir gën a mën a yaatal liggéey bi donc tey comme ni nga ko gisee ci tiitre bi dañu ñëwoon waxtaan ci benn phénomène muy émigration clandestine ñu gën ko xamee ci turu Barça wala Barsaq donc mu nekk phénomène boo xamante ni si nii suñuy doomu réew ñu ngi ciy ñàkk seen bakkan am ñoo xamante ni dañ ciy jóge tàggali ko ak seen sago am ñoo xamante ni dañuy dem sax ba yegg fañ bëgg a dem ñu refulewaat leen delloo si leen biir Sénégal mu nekk loo xamante ni si nii metti na trop alors tey ci lañ bëggoon a ñëw taxaw def ci quelque jàngat avant loolu aussi tamit ñu ngi leen di wax ni am nañ benn group buñ cree créé groupe boo xamante ni pour di waxtaan li xew ci réew mi. bu dara xewee ci réew bi ñu def ci benn waxtaan jël ci wax yi nga xam ne moo ci gën a am solo ñu def ci vidéo dugal ko YouTube pour ñëpp mën ci jariñ donc képp ku bëgg a ci groupe boobu rek mën na jël numéro bii def si incha allah dinañ ko ci dugal. donc bu ñu ñëwee ci li nga xam ne ci lañ bëgg a débattre tey d'abord dañuy wax ci yenn yi nga xamante ne si moo waral lool di am bi ci njëkk mooy sunu doomi réew amuñu liggéey ci biir réew mi maanaam liggéey bu doy donc manque d'emploi bokk na ci li nga xam ne mooy pousser xale yi ñuy jóg fii di jël gaal pour dem bitim réew daani seen doole mais aussi un pays mal gouverné bokk na ci raison yi nga xam ne moo waral immigration clandestine ba léegi di am parce que tey am réew ñi ko jiite su fekkente ni soucié wuñ ci population bi ñi nga xam ne ñoom lañ jiite yërëmuñ leen su boobaa mën na pousser à ce que population boobu noonu di jéem a génn di daani seen doole ci yeneen réew parce que liñ bëgg dëgg-dëgg mënuñu ko amee ci seen biir réew ndax alal ji dafa féete boor réew mi ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bopp bi seen papa yi seen yaay yi seen doom yi seen tante yi seen bàjjen ñoom rek ñooy jariñoo alal réew mi xool leen pétrole bi day féete boor fer bi day féete boor leneen leneen yi nga xamante ni si moo mënoon suqali réew mi lépp benn parti rek ñoom ñoo koy occupé toog ci ñi ci def ñi ngi souffrir mais ñoom seen yoon nekku ci loolu moo gën a waral doomi réew mi di fippu di génn pour dem wuti liggéey ci yeneen réew beneen bi nga xamante ne si tamit dina pousser nit à que mu def loo xamante ne si sax xëy na bëgg ko woon a def wala doonul lu ko gënal muy parents yi parfois da ngeen nekk ak sa benn moroom ci koñ bi yàlla may ko change mu am lu mu tukkee dem ñëw comme ni ñu koy waxee di dagg bu mu gàccee yi ku soxla tey jii dem ci moom mu fajal la sa soxla xew-xew bu amoon ñu koy tuddee. yow nag nga ne ci koñ bi di taqale pour nga am sa loo ndekkee problème la say waajur topp la naan la amoo jom xoolal doomi diw ji tey mi ngi faj bu mu gàcce yi di la wax yoo xamante ni si yow boo dee gor dootoo ko mën a muñ ba mu la poussé nag à ce que nga def loo xamante ni si ëllëg mën nga ci ñàkk sa bakkan donc parfois également ñi nga xamante ni ñoo ñu wër ñoom ñoo ñuy poussé à que ñuy jël décision yoo xamante ni si doonul lu gën et pourtant dafa am sa benn moment bu ma daan wax souvent que ni. wërsëg du maxe nit ki li nga war a am ak foo mën di nekk àdduna heure boo ci waree jot incha allahu day ñëw ci yow donc gëwma ni ñàkk wala bëgg a am wala bëgg dagg bu mu gàcce jar na ngay dugg gaal di sacrifier sa bopp ak lépp li nga bàyyi sa ginnaaw di dem naan dangay ngay wuti ji dara bitim réew ak lu mu metti metti condition yi dëkk bi doy na waar ñun ñëpp ñu ngi koy yëg fii dëkk bi fi mu toll nii ci ñi nga xamante ne ñoo féere ci kaw rek la neex mais ñi ci des ñëpp ñu ngi souffrir ku ko wax ku ko waxul yaa ngi souffrir boo jooyul lii yaa ngi jooylee mais jàpp nañ ni jaar ci gaal dem di wuti ci dara bitim réew mooy dernière solution je peux même dire que ni loolu du solution. parfois di nga bëgg a comprendre ñu koy def parce que ils sont désespérés amatuñ benn yaakaar Sénégal donc ñoom li gis mooy génn rek. parce que am na ci ñoo xamante ne dañuy gis seeni parents sonn ci ñoom lool depuis bi ñu nekk xale ba léegi ñu leen defal lu ne ñoom ñu màgg bëgg leen teral mais yàlla mayu leen lu leen terale donc ñoom li ñu gis rek mooy nañ génn dem wuti jéem a am ñëw teral sama papa teral sama yaay dama bëgg yóbbu sama papa màkk dama bëgg yóbbu sama yaay màkk yooyu yëpp saa su comprendre mais xalaatal ni tey boo demee ci géej gi des ba papa bi nga bëggoon a teral ak yaay bi nga bëggoon a teral ñoom nga bañoon am dara sax te ñoom bu ñu xëyee di la gis. moo leen di gënal tey ñu naan leen seen doom da doon jéem a tukki ba des ci géej gi donc d'une part di nga comprendre ñi nga xamante ni si nii amatuñ benn yaakaar ñi ngi dem mais du ñu mën a ànd ak ñoom ci loolu ñu doon def parce que risque bu rëy rëy rëy mu ngeen ciy xar et li nga bëggoon tey jii nii bu fekkente ni yegguloo ci jàmm li nga bëggoon lépp du antu te su antuwulee naqar bi nga koy bàyyal say parents rek day gën a métti alors képp koo xamante ni si nii nas nga jël yoonu géej gi xalaatal bu baax li nga xamante ni si moo la ci mën a fekk ak bu la ci fekkee même bu dul yow sa bopp mais ñi ngay bàyyi ginnaaw nan la leen di def te pourtant ñoom ñoo taxoon nga jóg pour uti ñoo teral leen far nga teg leen naqar bu gën a rëy ñoom bu ñu sañoon xëy di la gis nga toog bañ a yor dara que tey ñu leen di tàgge seen doom da doon jéema a dem tukki jaar ci géej gi ba far jaare fa te aussi li ma jàpp mooy tey ki nga xamante ni dafay jóg. lijjanti benn trois cent mille wala benn quatre cent mille di ko fay dugg ci gaal pour dem extérieur som boobu noonu bu ko jéemoon ubbi benn boutique wala jéem a def benn commerce bu ndaw wala yu mel noonu mën na ci am loo xamante ni si dina ci mën a yor boppam ba yor ci ay parents wala au moins loo xamante ni si dina ci mën a faj ay soxlaam ba kenn du ko xamal dara man gëm naa ni moo gën nga jël som boobu noonu joxe ko pour dugg ci gaal boo xamante ni ay risques mi ngi ci fii ñaata nit ñoo fi dem ba yéeg ñu waat leen ñu dikk perte seen xaalis noonu noonu coono yi nga dal ci géej gi risques yi nga jël lenn lu ne mënoon la la cee dal loolu lépp nga jànkonteel ko ba pare ñu delloo si waat la Sénégal nga war a recommencer à zéro di dund dund boo xamante ni si mooy gën a métti parce que di nga boole gàcce ku war a commencer waat à zéro am na ñoo xamante ne jaar nañ sax tàggaliko ak seen sago kon jàpp naan yooyu yëpp su fekkee yéen a koy gis war na mën a tax ngeen delloo seen xel bu baax donc vidéo bi ñuy def juste pour di leen gën a ñaaxaat ngeen gën a delloo seen xel xam ne tey jii rek wërsëg du maxe kenn ku ne li nga war am incha allah bala ngay génn àdduna di nga ci jot parce que suñu borom moom mooy maye te yaamalewul day may kii lu bari may kii tuuti mais kenn ku ne li nga xam ne moom nga am nga doyloo ko sant yàlla xam ne moom lu mu def rek dafa gën te lu mu la xañ rek am na leen lu mu la dencal donc nañ jéem a delloo ca suñu xel. te xam ne jël yoonu géej gi mooy li mujj man dama jàpp ne sax du solution kenn waru ko xalaat kenn wër wërta imaginer même bu ñu la doon yóbbu gratuitement ngay nangu di jël sa bakkan di ko teg ci risques yi mel noonu et tamit également di lancer walla benn message ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiite ñu gersuwaat bu baax population bi leen yaakaar parce que dëkk bi métti na tey dangay ngay xëy ñun la yokk nañ lii suba nga xëy ñun la yokk nañ lee dund gi di gën di metti te liggéey amut kon bu ñu xolaatee bu baax nit ñuy jiite jéem a xoolaat nu ñu def ba xale yi am liggéey mu am ci lu ñu jàpp su boobaa phénomène bi ñuy woowee barça wala barsàq même bu fi jógul tamit au moins dina wàññeeku parce que man gëm naa ne nit ki toog dëkkam am ci lum jàpp man di ci yor waa këram moo ko gënal fuuf muy gem ci yeneen dëkk pour di fa wuti liggéey ak bitim réew ni mu méttee déjà tukki rek génn sa dëkk rek dem ci beneen dëkk même su dee ci biir Sénégal sax dafa métti waxuma la nga génn dem réew ak réew sedd ba fa nekk te Europe bi ñu doon dégg bu njëkk demeetul sax noonu parce que ña fa nekk rek booy dégganteeg ñoom ñoom ñu ngi bëgg a dellusiwaat Sénégal am na ñoo xamante ne bu ñu amoon fii sax benn salaire trois cent mille sax ñoom jaral na leen ñu bàyyi liggéey ba ñu am foofu noonu ñëwaat ci biir dëkk bi toog fi di liggéey di seen famille parce que fële loo fa liggéey di nga ko faye impo lu bëri maanaam soo ko doon am ci salaire dafay maanaam moitié bi yëpp lay des wala lu sax moitié bi fa lay des donc na nga sori sa famille sedd ba foofu métti na ngay xëy di jànkonteel yoo xamante ni si nii doy na waar ñaata doomu Sénégal moom lañ faat ci bitim réew ba léegi nii mujjul fenn des fois nga dajante ci xeet yoo xamante ni si dañ lay maltraité di la wax wala di la def loo xamante ni si du la neex te doo ci man dara parce que yow yaa dem réewu jàmbur donc képp koo xamante ni si nii prévoir nga tey dugg ci yoonu géej gi delloo ci wata sa xel bu baax te xam ni boo ci duggee mën nañ jàpp ni xaru la donte sax amaduñ espoir mais nu ànd ak sunu ngor gëm sunu boroom xam ne tey lépp lu mu dogal rek daa doon li gën te lépp lu mu def rek am na lu tax mu def ko kon nañ gëm boroom bi wóolu ko doyloo ko lépp lu ñu am rek ñu xam ne kat lii lañu yàlla jagleel ñu jéem a xool nuñ ci dunde ba keroog yàlla di changer sunu situation donc tey loolu moo nekkoon vidéo bi di dellu encore une fois di tuub di jégalu ñëpp su fekkee wax ji am na leen lu ci dëng rek ngeen xam ne ci nit ki la parce que doomu matul mais lu jub rek ngeen xam ne ci ndimbalu borom bi la di leen jox dig daje ci beneen vidéo incha allah